rapport ak. Euh, waaw non euh, promesse la rek promesse la dama ñëw ci promesse yi. dama la yónnee promesse ku fi toogoon la dem ak promesse ku ku def te soog a ñëw ñaari contraire la ah. alors moom mi nga xam ne xamul woon li mu mën xamul woon li fi nekk nee na xamul woon situation économique bi promesse yi mu def yëpp defu ci benn man encore maa ngi koy xaar ba déclaration de politique générale. Hmm. ça a été toujours ce que j'ai mais bi ñu waxee ne dañuy def appel à candidature laa ne amul. ci nga ne amul. waaw mënul nekk lu ma nekk. lu tax ah, xam lu tax am na ay euh, poste yoo xam ne pour nga àgg fa appel à candidature yóbbuwu la fa parce que ak fonction publique aussi dafa am loi dafa am règlement dafa am statut particulier yu ñu war a doxal du ku lu mu neex rek. nga ne dafa war a nekk euh, da ngay def euh, dégg nga maam avis à xaw ma lan pour nga nekk euh, directeur de cabinet du président de la république non am na ñuy am xam-xam am njàng sori. te duñu remplir condition yi. ma laa ilaaha illallaah dañ ko attan am na ñoo xam ne amuñu grade bi te mën lu ëpp ñi ñi yor grade bi di ko def dama xam dama ko dund dama dund ay nit yu assuré. métier yooyu directeur de cabinet du président de la République am ñu amul diplôme yi am ñu am diplôme am ñu am diplôme équivalent yi te ñi amul diplôme yi gën leen ko mën xam nga moo tax may wax ne Diomaye bu dàqoon le bala ki mu ne secrétaire général de la présidence waaw bu ko dàqoon conseil des ministres bi mu njëkk a commencé ne à dix heures moonte ñoom dinañ toog ba ba seize heures di ranko di di ranger chaise yi te duñ ko mën la disposition des sièges du conseil des ministres à gauche et à droite c'est pas n'importe qui hein ah donc loolu dañ koy jàng alors maintenant li ñuy waxoon ne dinañ ko def d'abord te mu yomb ci ñoom mooy dissoudre le ko conseil des collectivités territoriales dissoudre le conseil économique social faire la loi sur la criminalisation de l'homosexualité et donner des pouvoirs au premier ministre loolu mooy les points fondamentaux structurels yi ñu tegoon mais ñuy defee loolu bu fekkee ne amuñu majorité à l'Assemblée nationale. mais mais mais vraiment. <laughs> amuñu majorité. gis nga majorité. waaw ah. dafa am majorité plusieurs majorités mën nga am majorité boo xam ne doo soxla kenn mais Macron dafa am dafa am dafa am majorité amu ko. non day def ay consulière ah, ah mais. Ah ah. ah ah oui oui noonu la ñu waroon def ñoom tamit. ah mais pourquoi pourquoi pourquoi le le le le le Yewwi Askan Wi naa pas pu réussir sa motion de censure parce que dafa liggéeyul ci concordance bi euh, euh, ce que ce que le professeur Amadou Ka encore. parler de la majorité discordante da ngay am majorité le matin voter loi mu jàll à yi nga am beneen ñëw du jàll tout dépend des conditions de négociation entre les groupes politiques et l'ouverture de la majorité pour parler aux autres ñoom bëri passé waxuñu waxuñu kenn de mais bii bu ñu amee loi nga xam lu Birame Souleye deful woon ci négociation ki fi nekk tey dina ko négocier pour am majorité mais pourquoi pourquoi pourquoi ñu. ñu modifier ñu ñu installer commission d' enquête le PDS à lui seul contre l'APR. ay waxtaan la. Ah, ah ah ah concordance pourquoi ñu arriver à xam nga am nañu benn loi est-ce que tu sais qu'il y une loi de modification de la constitution de euh, pour, pour le conseil constitutionnel. Mm-hmm. xam nga ne am na. Mm-hmm. du mu ngay seet loxo lu tax demul. am na parce que bon écoute les les, les jeux étaient biaisés mais pouvoir bi wax naa la ko léegi solution mooy mu trouver des ponts de conciliation et de discussion ci problème yi mu war a am au point de vue législatif sinon mu jël la dissolution en octobre.